déglul ko doon taalibeem di ko liggéeyal kon bu toogee ba tey yore ministère di liggéeyal réew mi ngay accuser loolu ci yow kon ñooñu xamuñu kii Omar Youm Omar Youm xalaat yooyu newul ci bopp bi man je le connais très bien boo newoon Omar Youm yow laa faral sa mun a déet kaa leen faral leen Macky Sall ndax président Macky Sall moo ma teg fii lu ma am président Macky Sall ku santul nit doo sant yàlla kon damay sant président Macky Sall kon lan lu fi jare yàkkamti Omar loolu talu ko xam nga lu mu tal ministère bi ñu ko jëm mu réussir ko parce que moom daa bëgg ngóora ngóora rek li ci lay dox moo tax xale yi seen sortie yi dama leen wax ne léeg-léeg euh, ki nga xam ne Omar jël na alalam jël temps respecté nit ñi di dem ci kilifa yi daal département de Mbour département boo xam ne département bu am solo daal ci Sénégal nga yor sa alal yor jël sa temps dugg ci askan bi di dimbale askan bi di dimbale jeunesse bi di dimbale mag dimbale ndaw dimbale jigéen am naa yaakaar ne kooku mérité wul sax ñu koy accusé ne yow yaa ngi ci